dal leen ak jàmm wala élection locale ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien ñoom def taxaw seetlu ci élection locale yi ñu dëgmal si ak na si waaye kat dañ cee bëgg ànd waa coalition Benno Bokk Yaakaar loolu sax moo gën a fës circulaire bi nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye génne na ko ginnaaw bi nga xamee ne kat am na ñenn ñoo xam ne lañ bokk ci ñoom yu jógoon kat déposé ci ay caution moo tax sax mu génne nag ab circulaire di wax ne kat seen bëgg-bëgg leen rek la ànd ak coalition benn bokk yaakaar su ko defee ñu xëccoo ji ndam li ci wàllu élection locale yooyu waaye nag la tribune giseewu ko noonu nee na kat PS dañoo dellu ginnaaw ginnaaw bi nga xamee ne kat am na ci ñoo xam ne jot nañ déposé caution ngir demal seen bopp moo tax sax Aminata Mbengue Ndiaye génne ab bataaxal moom ngir rek gindi ay naataango bi nekk PS4 bëgg-bëggam leen rek la fexe rek ba dëgëral jubóo gi ca benn bokk yaakaar loolu yéen i kaab jël soleil moo ko bind Aminata Mbengue Ndiaye nag wax kat nañ ànd ak benn bokk yaakaar loolu vox populi moo ko bind suñu naataangooy jàpp ne loolu moo gën a fës nag ci nga xam ne kat amoon na ci union régionale yi Aminata Mbengue Ndiaye yoo xam ne kat yu wóor lay doon waaye tamit yoo xam ne ñëpp ci gis seen bopp dafay gën a dëgëral coalition benn bokk yaakaar li ni mel la témoin moo ko bind dafa mel ni kat moom dafa jël PS jébbal ko coalition benn bokk yaakaar loolu les ko moo ko ci yokk yéeni kaay bi di l'info giseewul noonu moom dafa jàpp ne kat PS dafay teg pression kii di Macky Sall l'observateur moom dafa taxaw ba tey ci mbirum Macky Sall mi nga xam ne kat moo war a tànn nag ñi war a xëccoo wàllu mairie yi nag ci coalition Benno Bokk Yaakaar leer ba leer mooy suñu naataango yi di mu ne Macky moom jot naa jël indi di si yi li mu bëgg kat moom mooy reconduire maire sortant coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi nga xam ne kat moom la ñu dëgmal si si jafe-jafe yi nga xam ne am na ci coalition Yewwi Askan Wi ak ñakas ñakas kam ci diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall loolu tax mu gën a fës ci yenn cas bi l'observateur suñu naataangoo yi di fësal ne tànneefu candidat yi coalition Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru nag moo tax ba waa Pastef ak taxaw Sénégal ñoom jubawuñ ci ki nga xam ne kat moo leen war a jiite fii ci biir Ndakaaru loolu kat boo defe nag da am njeexital ci coalition bii di Yewwi Askan Wi Pastef Dakar dafa gedd Yewwi Askan Wi loolu Vox Populi moo ko bind suñu naataangooy di fasal ne waa Ousmane Sonko sax ñoom dañuy ñaawlu nag fuqale gi nga xam ne kat waa taxaw Sénégal dañ ko fuqale ndaxte kat dañ bëgg nag boof ci lépp loolu ñoom duñ ko nangu Pastef gedd pur nag di gën a sori Yewwi Askan Wi jafe-jafe gën a tar ci coalition boobu nga xam ne Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ñoo ko jiite loolu yéeni kaab di la moo ko ci yokk Pastef Dakar sax dina amal nag investiture am suba lay doon loolu nag yéeni kaab jafe-jafe yi am ci coalition Yewwi Askan Wi fii ci Dakar nee kat lépp mu ngi dooree woon ci moo xam ne amoon na fële ci Hann bel ngir rek ki war a jiite waaye tamit ki war a nekk mandataire commune boobu noonu ci la nag Babacar Mbengue jóg kat bëgg bëgg ñu tànn ko waaye nag ki fetaloon Pastef li def lépp loo kër laay député yooyu di Boubacar Biaye ak tamit El Hadji Mamadou Sall li leer ba leer mooy ci commission ad boobu kat ñu fa war a teewal ko jógee xam nañ leen ñooñu bokk nañ Cheikh Bara Dolly Mbacké ak tamit kii di Mame Diarra Fam waaye nag ñi war a teewal ak Benno Bokk Yaakaar ak tamit ñii di non inscrits yi kenn xamugu leen lépp nag dina leer suba loolu Vox Populi ñoo ko ci yokk l'observateur di bëñ ne commission ad bi war a statuer ci dina malaan kër laay nag moom taxawal nañ ko dem ba tey ci wàll woowu yéen i kaab jëlee si ko di fësal kii di maam Diarra Fam ak Cheikh Bara Dolly Mbacké ñoom kat la ñu tànn ñuy war a teewal nag groupe parlementaire liberté et démocratie benno ak non inscrits yi nag tey la Chelsea bu Edouard Mendy nag dafa gagné dem Malmo ñeenti bal ci dara tumu ko nag du ma yu méttee métti kii di góolu Sénégal di Edouard Mendy moom nag daal di satax lu def nag onzième clean sheet maanaam fukki match ak benn yoo xam ne kat dugaluñ ko ay biyam loolu nag ci wàllu ligue européenne des champions Bayern Munich bu Bouna Sarr moom dafa gagné tamit gagné yu métti Benfica bu Lisbonne ñeenti bal ci dara loolu yéen kaab di sat moo ko bind record dafa dellu si waat ak ñun ci ñu teel journée Europa League bi war a am tey jii nii Marseille nekk ci mission ginnaaw boo amee ñaari match li yoo xam ne kat moom neexul dara tey jii mu war a sëgg ak Lazio de Rome di match a des ci a gagné match boobu noonu waaye ba tey ci Europa League boobu la ñuy def suñu naataango di record di fësal ni am na nag ñaari doomu Sénégal yoo xam ne kat tey jii dañoo war a gagné ak seen équipe muy Marseille bu Cheikh Bamba deuxième tour jàmbaar nag war a def kéem su lay kàttanam xool ci jaraaf ni mu defoon daaw stade di fësal ne war na amal nag mission commando ci Nigéria bi nga xamee ne kat Eyimba daf ko gagné woon nag ca xaaj bi ne ko benn bal ci dara fii ci biir Sénégal jàmbaar moom defoo war a nag roy ci jaraaf de Dakar bi nga xam ne kat situation bi ni mel la amoon waaye nag la cee mujjoon génn ba mujj nag bokk ci phase de poule yi mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi Les élections locales et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce jeudi, selon Sud Quotidien. Avec les élections locales qui se profilent à l'horizon, les investitures constituent une épreuve douloureuse pour les coalitions et partis politiques. Le Parti socialiste qui a décidé de participer à ces élections dans le cadre de la coalition Beno Bokoyakar, tout en envisageant de déposer sa caution, appelle à préserver la volonté réaffirmée de ses militants lors des rencontres avec les unions Dans une circulaire, la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye invite les secrétaires généraux de coordination, membres du bureau politique, militants et responsables de base à assumer quant à la cohérence et la responsabilité ainsi que la fidélité de ce compagnonnage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Rétropédalage accéléré du Parti socialiste, écrivent nos confrères du quotidien La Tribune, qui précise que quelques jours après la sortie de certains responsables socialistes faisant état d'une caution du Parti socialiste, la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye la position de sa formation politique. Elle soutient que le PS a décidé d'aller aux élections sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste cherche à préserver l'unité de Benno Bokk Yakaar, selon le quotidien national Le Soleil. La secrétaire générale du Parti socialiste impose le choix d'aller avec Benno Bokk Yakaar, camarades lors des rencontres avec les unions régionales Aminata Mbengue Ndiaye pour des choix judicieux et fédérateurs titre nos confrères du quotidien Le Témoin Aminata Mbengue Ndiaye enfonce le PS dans Benno Bokk mais ouvre des brèches selon les Échos le Parti socialiste met la pression sur Macky Sall nos confrères du quotidien L'Info l'observateur s'arrête sur les plans d'investiture de Macky selon mon confrère dans le cadre des séries de rencontres de la coalition à la coalition Yewwi Askan Wi Khalifa Sall Sonko la guerre d'ego et le titre qui barre la une du journal mon confrère explique pour des choix de candidats de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar Pastef et Taxawu Dakar n'arrivent pas à s'entendre le parti de Ousmane Sonko a suspendu ses activités au sein de la coalition dans la capitale un malaise qui risque de saper l'union au sein de l'opposition Pastef Dakar claque la porte de Yewwi Askan Wi écrivent nos confrères de Vox qui précise que les partisans de Ousmane Sonko dénoncent cette volonté hégémoniste de Taxawu Sénégal. Pastef boude, le PUR s'éloigne de Yewwi Askan Les partisans de Ousmane Sonko veulent contourner Taxawu Sénégal, ajoute la tribune. Suspension des activités de Pastef Dakar dans Yewwi Askan Premier clash entre Sonko et Khalifa Sall, selon l'info. Pastef Dakar procède à des investitures de ses candidats demain vendredi, selon nos confrères du quotidien et Alors que les leaders s'étaient entendus que le choix des candidats devrait découler de consensus, le maire Babacar Mbengue a tenté le forcing et s'est heurté au refus du représentant de Pastef. Affaire des trafics de passeports diplomatiques selon Vox Populi, à l'issue de la réunion hier, la commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas divulgué la composition de la commission ad hoc appelée à statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire en plénière, l'Assemblée nationale lèvera tout mystère sur le choix des onze membres. Cheikh Bara Dolly et Mame siégeront pour le compte de l'opposition, ajoute nos confrères. La commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés installés, selon l'Observateur sur le même sujet, nos confrères du quotidien Les Échos révèlent que Mame et Cheikh Bara Dolly ont été choisis par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Benno Bokk Yakaar Chelsea d'Edouard Mendy a largement battu Malm 4 à 0. Le gardien de but de Lyon du Sénégal en a profité pour signer son 11e clean sheet de sa carrière en Ligue des Champions. Le Bayern Munich de Bounassar s'est également baladé au Portugal devant Benfica 4 à 0, selon nos confrères du quotidien sportif Stade. Record s'intéresse à la troisième journée de l'Europa League de ce jeudi. Marseille en mission. Après deux matchs nuls à la Lazio de Rome. Cette rencontre et même cette double confrontation est d'ores et déjà pour la suite de l'aventure en C3. Selon toujours nos confrères, parmi les Sénégalais sur le pont ce jeudi, pour le compte de la troisième journée, Cheikh Bambadien et Khalidou Koulibaly sont les deux pour qui la victoire est quasi obligatoire. Coupe CAF deuxième tour Jambar condamné à imiter le Jaraaf Dakar selon Stade ce sera une mission commando pour les académiciens en terre nigérienne la bande à Insa Boy est obligée de refaire son retard devant l'équipe de Yimba qui l'avait battu à l'aller 1 à 0 rien n'est encore joué et Jambar doit s'inspirer du Jaraaf Dakar qui était dans la même situation la saison dernière merci c'était tout à vos journaux et bonne lecture à tous